salaamaaleykum wa rahmatullah ah, soxna Sassou ñu ngi lay ziare Guèye Guèye baax yéen a ngi ci jàmm bu baax a baax alhamdulilah ngeen di bu baax a baax ziare di la yëgal na nañ ci jàmm ak salaam ah, egsi nañ ci jàmm di nuyu njaboot gi yëpp nuyu dëkkandoo yeeg mbokki taalibe yi mbokk yi sa mbokki bopp yi <laughs> di leen ziare ñoom ñëpp. di leen jottali sunu cant ak sunu ngërëm jëme ko ci ñoom ci seen taxawaay seen pësteef ak seenu bu yëg ak seenu cofeel yi nga xam ne lépp rek ñu ngi ko yëkkati jëmale ko ci sunu jëmm yu xeebu yi te lépp Sëriñ Tuubaa tax dëgg yàlla seen jëf ji Ehm, rëy ci ñun lool ëpp na ci ñun it waaye nag Serigne Touba tax ñu di ko def Serigne Touba tax ñu di jàpp Serigne Touba tax yi ñuy yëngu ci sunuy mbir ak di ci feeñal seeni yéene di ci wane seen di ci tuur seenu ñàq di ci joxe seen alal ak seenu waxtu te yooyu yëpp rek bu ci nekk di lu seer lool ci doomu adama kon fuñ ko génnee rek ah, la tax ñu génne ko jaral na leen kon nag ñu ngi leen di sant ñoom ñëpp ku ci nekk rek ci sa tur sant te xam ne benn buñ ci defoon rek mu doy sëkk jàppale gin jàppale ci yoon wi ak ci ngan gi ak ci seen alal ji ñu yëkkati euh, jàppalee la ko loolu rek day suñ ca yemoonte ñëwuñ sax day daal di doy sëkk waaye ku ci nekk def nga ci saw ñàq yëkkati sa tànk ñëw yëkkati sa addiya loolu lépp rek di lu rëy noonu ma ko waxee rek waaye Sëriñ Tuubaa di ko def kon yàlla na seen jëf jooju dugg ci jëfi Sëriñ Tuubaa jum nangu barke Seexul Xadiim jàppal ñu ko lëre gi te sàmmal ñu ko bu baax waaw bañ àggale ko ci kanamu Sëriñ Tuubaa te nangul ñu lépp defal ñu ñu doon taalibeem yu mu gërëm barke Sëriñ Tuubaa wax dëgg yàlla daal waa Tuuba Palma amuñ seenuk fay seenu taxawaay rafet na jàpp gi daal kawe na suñ kon ñu leen di ñu ci yow nga jot so sunu cant ci ñoom ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñu teew amoon yéenay teew te mënuñoo teew ñëpp rek yàlla nañ bokk dajeeg fayuk sëriñ bi ngërëmam waaw ginnaaw siyaar bi ñu la siyaare soxna si ak ndokkeel gi ñu ndokkeel ci bis bi it nga xam na lépp rek seen taxawaay ak seen jëf ak seen pëstéef euh, moo leen may lii mu ngeen am ci dëkk bi waaw seen taxawaay ak seen pëstéef la rek ah, di leen sagoo lool ñu ñi ngeen mm, yaakaar tànn ñu ñuy seen bunt ci Serigne Touba muy Serigne Saliou ak Cheikh Moustapha ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ah di la ne foofu nga bokk di wax dëgg yàlla. dañ leen ndamoo rek ñun tamit ndax li la waa dëkkandoo yëpp seereel muy bëgg sëriñ Touba ak gëm ko ak yaakaar ko ba ku la gis rek xelam dem ci sëriñ bi ah, loolu sëriñ bu nekk soo sañoon sa sa sa ku bokk ci yow mel noonu kon alhamdulilah ci taxawaay boobu nga am am ko ci dëkk bi am ko ci réew mi am ko fépp ba ku la gis dal xam ne. jàmbare Sëriñ Tuubaa yi noonu hmm. tur wi wenn la kon yàlla na sax dàkk bi ànd ko wér ci wér ki Sëriñ Tuubaa hmm, di ginnaaw buñ la beralee cant yi ñuy sant sunu waajur ah, sunu xarit sunu maam sax yaakaar naa Cheikh Mahamadul Munir ñu ngi koy siyaare bu baax di ko ñaanal mu yàgg fi te wér hmm, di séddale yàlla bu ko ci kenn ëppale taxawaayam bi mu taxawee ci dëkk boobu wuutu fi ñëpp taxawaaye fi taxawal fi njabootu Serigne Touba gépp njabootu Cheikh Massamba taxawaaye taxawal fi yoonu murid yëpp ak lislaam yëpp yàlla na ko ci yàlla dëgëral waaw moom it taxawaayam rafet na lool foo foo foo jaar rek kàddu gi genn la murid yeeg tijaan yeeg xaadir yi ñoom ñëpp rek cant geeg li ñuy seere ci moom benn baat bi la kon wane na ne lislaam bi la fi nekkal yal na ko yàlla dëgëral ci barke Serigne Touba di sant it suñ mbokki tijaan yi mm, saawiya bi waaye ñu ngi leen di ziare njiital si Ibrahima ci si mortala mbokk yëpp rek ñoom ñëpp seen taxawaay nañ ko daan defe rek defe nañ ko noonu yal na leen yàlla fay aw yiw yal na leen yàlla dëgëral yàlla mm, taxawaay yi ngeen di taxaw foofu ci réew mi ci ak booloo ak boole seen bopp yal na ko yàlla saxal yàlla bu ci saytaane amul yoon rek Sëriñ Tuubaa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu fi teew ak ñi teewut ah, di delloo siyaare sëñ Mbay Cuun mm, taalibu Sëriñ Saaliw nga xam ne sunuy tànk ci barab boobu ci Eh, moom la ko yàlla jaarale waaw mu jàpp ñu lool te taxaw ñu ak njabootam yëpp rek soxna Aysa ñu ngi leen di sant di leen gërëm lii lépp ci ak yaatalam la waaw noonu ko soxna si leerale rek lépp ak yaatalam la eh, moo ñu yëkkati teg ñu ci loxol soxna saasum mu aw ko ci liggéey liggéey boobu kon lépp rek suñ bay cul lañ ko defal yàlla na yàgg te sax ci barke Sëñ Tuubaa jërëjëf ñu ngi sant ñëpp di sant ay rakkam soxna Awa Thium ak i magam ak njabootu sëñ capitaine gi yëpp ñu ngi leen di ziyaare di am bu baax sant mbokki taalibe yi yëpp di leen gërëm ñaan suñu borom defal leen fajug aajo saayir ak baatin ku ci nekk lu muy yuutu yàlla ko ci yàlla jotal ci barke Cheikhul Khadim mottali seenub liggéey ci seen sago ànd ko ku wér ak dal yàgg leen fee fekk ko ànd ci barke Cheikhul Khadim jërëjëf ñu ngi siyaare mbokki taalibe yëpp mbokki daayira bi sëñ Adi Touré ak euh, mbokki arénal yëpp ñu ngi dugalaale ci sant geeg siyaar bi suñ Modou Sall ak daayira Serigne Saliou bi yëpp rek leen di dellee siyaar waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa